war voté code euh, pétrolière bi nga xamné président ak euh, tay acteur yi nga xamné tay ño nek ci bir réew mi yëpp eh, nañ ko di waxtané eh, di ko togg kenn ku nek di joxe sa xalaat bañu teunk né ah cote bi kat baax té cote bi dafa nek cote bo xamné yamul fi rek au niveau international ak fep yóbbu nañ ko fa te xol nañ ko saytu ne gis nañ ne ci Afrique mën nañ ne code bi tey mosul am code bu mel nii boo xam ne def nañ ko si loo xam ne ay ressources naturelles la yoo xam ne dañ ko bokk population bokk ko ñu woo ñëpp kenn ku ne ñu wax la loo ci xalaat kenn ku nekk wax ba ñu xalaat ne lii mooy lu baax li ñu tënk ko ñëw andi ko assemblée pour assemblée voté ko population bi xam nañ ne ressource bii di génn ñoom ñoo ko moom mais li ñu moom niñ koy jëfandikoo anam yooyu leeru leen te nanguwuñ leen ci leeral ñoom ñu jóg di révolter muy indi ay xeex ñun nag comme Sénégal jàng ñun petrole ñu nga koy doog a am dañuy jàng ci conséquences yi nga xam ne ñi ko amoon tey loolu dab na leen ñun ñu fexe ba loolu bañ ñoo dal moo tax ñun ñu woote commission nationale woo acteur yëpp waxtaan ak ñoom pour que kenn ku si nekk lépp lu mu ci xalaat loo xam ne lu baax la euh, luy lu koy baaxal la ak luy indi leeral leer la